mais ci loo nekk. sant yàlla bu baax alaaji Tapha Kandji. mbaa ngi ci jàmm. gars yi dañu naan namm Tapha Kandji xanaa écran bi tey mën a tàkk. waaw xaaral ma pare 30 secondes rek. Euh, le grand champion ñu ngi lay nuyu. waaw Fadam kii kan la. kii ci préparateur u fii euh, moom la eh. <laughs> mais nu mu eh, demee nii Fadam Fadam. ziar naa waaw maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu ñëpp neel Tafa Kanji man Kanji laa sant ay mbokk lañ mais xamu ko mais dana ko xami <laughs> ay mbokk yu jege lañ ne ko ne ko ñoo bokk ñoo bokk Saalum Jurbel waaw fi bokke bokkee la ak Jurbel. macha allah yow doo kon sama maa ngi lay na kilifa gi teel na nag. bale rek. yow nag fero fi ngay yóbbu làmb Tapha Kandji gëmal li ñi loo gëm gëm loolu nit ñi loo gëm barke Seydina Mohamed lamb yëgul foofu euh, le grand champion maa ngi nuyu di la jàmm di la ñaanal sutura yaakaar naa ne fii combat bi toll mhm. muy Modou Lo di Boy ñoom ñaan ñëpp ci massage la ñu toll mhm. def réveil musculaire mais ndax te jii li nga doon wax boobu ba léegi yaa ngi ci ci combat bi ban Modou Lo moo war a Boy Niang ban modlo mo wara war a conférer titre roi des arènes ban modlo mo wara ñew pour confirmer wa ndax modlo le combat bi combat confirmation la lan lañu mëna xaar ci modlo le 1er janvier ci digëntéem le grand champion du Boy Niang numéro 2 sama waji ji la. ok Fadam bon man limay expliquer expliquer moy euh man faral bon c'est vrai quoi modlo sama mbër la quoi mais damay réagir moy damay joxe sama xalaat quoi bu fekkoon ne Boy Niang day dajé benen mbër aussi dama kii euh, qualité yi ma gis si moom laay wax bu dee favori fi combat bi tamit dama koy wax keneen kum dajalon kudul modlo rek damay wax bu dee Boy Niang moo jël favori bi ak nangam loolu lay expliquer mais problème bi mooy Boy Niang c'est un lutteur limité li tax ma c'est un lutteur limité mosoo gis Boy Niang dem ak stratégie stratégie bi baña jall mu créer un exploit bo xam day surprendre nit ñi mosoo gis boy ñaar dem ci bëre bi bëre bi doxul mu changer stratégie door mbër mi mu daanu wala mu yóbbu ko ardo toujours mom stratégie moy dalay aspirer ba nga ñew wala mu yoxofu la mais loolu bu jallul rek day gën sa ko yi fexé ba combat bi jeex loolu moy un lutteur limité té na gaay yi jàpp benn affaire moy kané ne muy lutteur dans le sport dans le monde du sport dans sa pratique muy tennisman bi muy lutteur bi muy boxeur bi muy ku munti nekk loo entraîné entraîné ba dëgër woo koom waaw booy def impressionné sa camp entraîné ba nga xam ne ñëpp d'accord nañ ne tey bien entraîné contact yi jaar yoon musculation bi jaar yoon yëpp jaar looñ mais si tey limité rek boo dajee ku man dalay duma dalay gañe ku ci nekk ku man problème bi mooy Boy Niang mën na def lu nekk ñi ko wër xam ki il est vraiment calé quoi il est au top def na lu nekk moy boxe bi moy contact bi moy lépp mais bu dajé ko xam il n'est pas limité donc lolu la longueur d'avance day feeñ te modlo c'est un lutteur illimité modlo bu bëre bi doxul euh amna xex bi mu ngi fi bu xex bi doxul ba gisoo moo moo moo ko am seen seen premier combat bi lan la si bëre la ko daane deuxième combat bi lan la si dóor la ko daane donc loolu mooy un lutteur illimité nit ña loolu lañ xamul ba pare deuxième affaire bi may expliquer mooy ah, ah, toujours mbër bi nga xam ne moom moo yor tenant du titre léegi euh, challenge bi toujours euh, ki ki ki ki ki ki détenir titre bi toujours day énervé wu parce que nga yor sa alal nit ñëw fokkarti da lay métti donc tu es toujours nerveux Boko ko xoolee si Yékini ak il était toujours nerveux Balla il était fri di Boko boo ko Bombardier ak Balla pareil nga xool ko si Eumeu Sène ak Bombardier pareil ainsi de suite mais bii dañu gis le contraire bii Modou Lo moo waroon a énervé mais Modou Lo dafa fri ba pare Boy Niang Boko ko open pression bi il était dafa dugg si combat bi ba pare donc pression de dafa voilà ça lui dépasse quoi parce que Boy Niang li ñu wax ne pour mu titre bi benn ñaareel bi mooy sauver l'honneur de Pikine ñaar ñetteel bi mooy ñëpp ak naan wala mënul donc charge yooyu noonu yëpp nit nit rek a mën a doon doo jinne man nag loolu moo ma ci jaaxal quoi moo tax ma ne la différence se fera voilà ku ëpp euh, ku gën a mën a gérer cette pression voilà loolu am na solo tabakaan yi tabakaan dégg nga li sa waay wax dégg nga communication am nee na wax na ci am na lu mu wax ci Boy Niang te dégg nga ko am na lu mu wax ci diggante ak Modou Lo dégg nga ko tey jii boo amoon looy ak lan ngay dugg ak lan ngay ci loolu lan nga ciy wax. non li nuyoo damay nuyu damay nuyu ñiy seetaan laa bi yëpp rek 546 personnes yi di leen ziar te di leen jox seen wàccuwaay moom euh, maa ngi koy ziar bu baax moom comme ndeysaan ñoo bokk sant danaa ne Kandji di ko jox wàccuwaayam. bu baax a baax a baax a baax a baax wax dëgg yàlla. Matar Mbaye Matar Mbaye dafa demande. Mm-hmm. li mu wax nag moom duma ci tontu quoi peut-être mais man am na lu ma euh, dégg sànq avant may dugg. muy lan. Euh, ma dégg la yaa wax Xaadim Gajaga ngeen waxtaan ci. waaw muy lan. ma bëgg laa xamal ne la. waaw Xaadim Gajaga maa ngi koy ziar baax suñu Xaadim. Mm-hmm. mais faram bul bul fàtte ne Xaadim Gajaga Pikine la nekkoon ñoom fa lañ jàngee bëre. Mm-hmm. waxuma booy ñang ñi ànd ak booy ñang dépassé nañ foo xamante ni dañ fay préparer booy ñang ba toll ci benn niveau bi ñëw ci face to face benn kàddu tax ñu changé dépassé nañ loolu gars yi nag ay xale lañ ci gis-gis mm-hmm. mais li nekk ci ginnaaw booy ñaa dépasé na loolu mm-hmm. waaj li ñuy waaj ba mu lamb ji desatul weer ñu ñëw ñu dégg ñu ñu génne benn wax loolu sàmm la suñ préparation barke alxuraanu karim passé nañ loolu nekkuñ foofu sax. kon su ma la déggee li nga bëggoon a xarit nga dafa ñëw pour jéem a buuri seen communication. pour jéem leen changer leur stratégie. non déedéet dama ne. non dafa wax nga laaj ko ne ko loolu kon ndax stratégie de communication la mu ne la waaw moom la woon. waa mais mais mais ndax tey jii. bi ko waaw ma wax la ne la dépassé nañ foofu laa wax fu ñu nit di bluffé ci communication di perturber suñ préparation préparation athlète bi. xarit nga dafa jàpp ne moom mesure la ko. ah peut loolu la jàpp pataas sama dàqal pomme de ku ne sañ nga ko na jàpp loolu rek. pataas gën a sax suukar nag. non mais yow na na pataas nekk lem mais pomme de terre ma dàqal man. léegi su ma la su ma la déggee da nga bëgg wax ne Khadim Gadiaga dafa ñëw ne Modou Lo Boy Niang bërig war na tax nga jël poids bu bari bii nee na mu ñëwaat téppoon presse gis Modou Lo boo xam ne nii gis Boy Niang bu nekk maigre barke Serigne Touba ñi wër booy Niang ñoo dàq bëre ñi wër euh, ñi wër Modou ëpp leen expérience la am. dégguma ñi wër booy Niang ñoo dàq bëri ñi wër Modou ëpp leen expérience la am. Pikine moo jur parcelle ci làmb Xaadim Gajaga parcelle la nekkoon ak ñoom Malick Métraillé ak ñoom Dolfa Neeka ak Conke Sil ainsi de suite. waram booy Niang ay tafaakaan yi xam nga man xaw ma làmb man man je suis pas doué ci côté technique ak tactique. man tey buñ taxawan nga naan ma kii pie bi man xaw ma loolu man xam nga man lan laa mm. damay ñëw xam nga waxtaan nangam nangam mais dama ne ñi yor booy ñang ci wàllum bopp ci bëre duñ moroom ñi yor Modou Lo parce que tey ñoom Khadim Gadiaga ñi nekk tey ci ginnaaw Modou Lo lañ jàngee Tapha Kandji li la Khadim Gadiaga wax la xaw a métti loolu touché non non non non billaay walaay taalaay loolu gis naa ne Kaaba barke Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke billaay walaay taalaay. dépassé ma mel tubaab ka xadim ka yëkkati ko tuuti quoi. non non non dama ko bëgg a dama ko bëgg dama ko bëgg a rek ne dépassé nañ fu communication di perturber suñ préparation. Cheikh xam nga wax ji sax soo gisee sax wax ji presque lan moo tax sax xanaa gars yi du ko def mooy xanaa ñi seetaan rek. mais xam nga làmb joo xamante ni wax nañ ko wax a wax a wax ba làmb ji desul lu dul sawaay ñaari fan loolu xam nga li ngay ñaan rek mooy suñ borom may ñu bakkan. na ñëpp am jàmm ba pare kenn bañ koo wuute fadam mais làmb bi laay jaratul jaratul sax débat bu bëri yàlla seere na ko. mais dafa gàcce walaay wërëwër combat bi dafa am combat bi daa dem ba ci combat bi des une semaine am benn combat bi am benn impact. impact bi ci côté communication wu combat bi benn ci diggante ñaari athlètes yi troisième ci ay mystique yooyu yaa ko gis rek. Ah, bu ma dagg. Ah, mais bàyyi ma am naa droit ah. mais lii ma wax ni bu ko bañ loolu lu am la. ah waa kon xaw ma ko boog. wala da ngay dugg ci. dugal dugal dugal Sëñ Bamba tey may la feu vert fu neex dugal. may nga ma feu fu ma neex ma dugg. barki yonent bi lu la fu la neex dugal tey dugal fu la neex. tabaakaat yi tabaakaat yi. maa lay dégg. may nga ma feu vert fu ma neex. fu la neex dugal. seen diggante ak Modou Lo Lac dama bëgg nga leeralal ma ko. Modou Lo loolu amul leeral day entraîné fii ñuy entraîné fii pour mu leer dañoo ñëw ba fekk fi muy entraîné ñu fàkk ci wetam di entraîné mu ñuy gis ñu koy gis. loolu loolu fan la woon ci Lac Rose. déedéet xam nga loolu du info. mooy mais info la. mais non non la ci laaj na ngoo ci wax. non non non loolu nit ñi ñëpp xam nañ ko. ñoo bokk ñoo bokk am na ñoo xam ne ñu ngi dundee. am na ñoo xam ñoo bokk fu ñuy entraîné dañoo ñëw ba fekk ko fi muy entraîné ñu fàkk ci wetam di entraîné. loolu da ngeen loolu lan moo taxoon ngeen def loolu lan moo taxoon ngeen def loolu. waaw bu ñu amee envie bi nag ku mu am Lac Rose. ndax tabaakaay ji loolu du gën a ah, waaw baax na ba tey. ñu hmm? <laughs> ko sa mystique tuuti ndax dinaa ci dugg. du ma wax ci mystique daf parce que xaw ma ci dara. alors dox ci mystique. dama cee xamul dara. mais yaa may fa weer bi. waa wa non soo ma ci laajee laa wax du ma la tontu parce que xam nga man xam nga ne su ma nekkoon ci mystique ba heure bii xam nga ne ci ñaari fanu combat xam nga ne du nekk sama néeg nii toog di seetaan la Tapha Kandji mystique li jëpp solo dañ koy liggéey weer avant combat. Tapha Kandji man tamit ceddoo laa ko yow. man nag du xanaa sax yaay xanaa xanaa li ngay nekk c'est cadre niveau bi nga àgg ñun àgguñ fa mais Tapha Kandji mystique moom heure bii lépp luñ ciy dox réglage sarax nga tolloon <laughs> kon xam nga li ma lay wax. réglage lan sarax. waaw sarax si mais mais li sama problème mooy Tapha Kandji ndax bëri Modou Lo yomb na. ndax. ndax bëri Modou Lo yomb na. Fadam làmb benn yomb ci. non mais Tapha Kandji bi ngay bëri Balla Gaye numéro 2 ak bi ngay bëri Lac de Guiers ak bi ngay bëri ak bi ngay bëreeg Modou Lo ban combat moo ci gën a sensible. ban préparation yàlla xam na ne fitna ji la Balla Gaye di teg gisuma ko ci Modou Lo. grand loo bëgg a wax. voilà foofu laay expliquer bon c'est vrai gis nga ni muy réagir nii rek la mën a réagir quoi. boo gise muy dugg si live bi toujours c'est pour soulager euh, les supporters de Boy Niang quoi bon donc c'est logique quoi. nii rek la mën a waxee xam nga xam nga non mais c'est vrai. Ah, mais mais mais daa euh, ñëw ci live bi pour am luñ dindi ci seen dënn yi. non non non. voilà mais loolu la mais loolu la et puis attention attention sama grand. wala sama tool mais mais ko waaw live bi nag live bi nag dama cee yàgg. maa eh, na fa combat. u ñaar non Tapha Kandji mais grand bi mu wax mais grand bi loolu am na am solo. waaye te bisimilah. te waaw Fadam gis nga ni muy réagir noonu c'est logique loolu ñëpp xam nañ ne voilà noonu rek nii rek la mën a waxee mënta waxee neneen loolu nii mais problème bi mooy euh, euh, ma ñëw ma ñëw dugg si man nag sama dëgg laa lay wax quoi man je parle les qualités de Modou et les failles de Boy Niang waaw man damay wax Boy Niang faayam yi pour waa Modou Lo pour waa Modou Lo mun ci profiter pour def ay un peu réglage voilà mais comme ni xaade ni grand gajaga di kii man bu ma duggee noonu si biir quoi parce que combat bi deux jours moo ci def fu mu toll lépp lu ñuy def mooy stratégie rek comment aborder le combat. mais mais balaa yi nga xam ne nii faay yi nga xam ne moom la boo ñaari indi. Hmm. nga ciy taxaw lan moo tax nga ne ka Kandji daa ñëw ci live bi ngir soulager ñi nga xam ne ñooy waa kër boo ñaar. mais c'est normal mais loolu c'est son rôle bu deful loolu kan koy def comme xaadim gaja grand xaadim mu ngi dugg si euh, live bi di kii. Mon ami, il va soulager c'est obligé quoi je suis d'accord avec lui Non, le y voilà pour soulager yan faay nga vous ci na gis nga nga heure utiliser bras en arrière bi da koy mhm. quoi bras en arrière bi xol ko si xol bon contre de utiliser vous mais contre tafatin utiliser contre tafatin toujours bu dóoree euh, donc ki bras devant bi mais toujours bu buy déclencher bras en arrière bi rek mooy gauche bi rek da nga koy gis voilà parce que amul amul habitude di ko liggéeyee quoi di ko xeexee les deux bras comme modlo ba pare beneen faay bi mooy gis nga bi muy bëre ki nu mu tuddati Lac de guerre bañ dem si saako yi gis nga bi ñuy àgg si suuf la gis nga kal boobu mu kal kii nu mu tuddati euh, Lac de guerre kal boobu noonu baax trop trop mais li may la de guerre, bob la de guerre da doon dem xam nga li ko may chance li de guerre. il était dans ses appuis daf fek pied bi dañu bu baax baax lolo tax kal nako ba kal bi jàll mais la de guerre a résisté donc motax mané ma lu stratégie bi modlo Lo mu parce que moment bi ni xam nga lan mo génn euh, si bëre Sénégal yi depuis Zarko kal à Fass ba léegi kal mo xew xam nga période combat day toll boo daanee ben daan rek ñep dañ koy jël bu dé moo ñëpp dañuy jël mboot bu dee plaqué ñëpp dañuy jël plaqué mais moment bi kal te boo gisee combat yëpp kal bi day ñëw te kal bi da lay surprendre. moo tax moo ci waaw te ñoo mën ñoo ëpp doole. pardon ñoo mën ñoo ëpp doole. boo ñaa moo mën Modou moo mën moo ëpp doole. foo teg loolu tabakat yi. ki ma gis laa wax man nekk ak moom. moo mën moo ëpp doole. waa bañ dem te ba ñëw mën mu loo moo ëpp ñu dem te ba ñëw ci kàttanu yàlla. bàyyil tons l'animal mu continuer vamos. rokkaan yi su ma la déggee mooy képp ku faral Modou Lo lundi à partir de 23h doo wax. ci kàttanu yàlla man damay dugaat. incha allah rabbi man. da dugaat ci laaj bi incha allahu rabbi damay dugaat. xam nga xam nga lan moo garaaw gis nga dafa am loo xamante ni maanaam du magi quoi maanaam mooy du lu ñuy luxus am na loo xamante ni du lu ñuy ñengo est-ce que yaa ngi may dégg Modou dafa am fu mu tolloon Modou dafa am fu mu toll ci làmb Modou dafa am fu mu toll dafa dem ba dafa plafonné ci làmb woy bi dafa liggéey ba dab ko dakoo koo dab ci lépp ci lu demee nan rawatina rawatina ne ci kàttan macha allah. yooyu ñun xam nañ Modou Modou mu njëkk mi bëre woon ak bombardier nga xam ne Modou day taxaw nga xool ko Modou takk dàkk ak ndaam gi sëfu njàpp nga xam ne mais Modou. Tapha Kandji su ma la déggee da nga bëgg wax ne Modou Lo bu fi nekkoon nekkatu ne bu xefee ñu gaañ ko laa booy bi dafay gaañ bu xefee. mais mbër mi commentaire ne ko mu arrêté commentaire rek yoonam néew ci combat bi. ban la Tapha vraiment eh eh booy bi dafay gaan laa wax bu bu bu xefee certes booy bi gaan ko ba pare doon koo daal. waaw jàpp nga ne kon su ma la déggee boobu da nga bëgg wax ne Modou Lo day duma Boy Niang wala Boy Niang day duma Modou Lo. xam nga xaju guddi boo ko rombee xam nga lu muy boobu ku xamul xamul. barke alxuraanu karim lu waaye di bañ ku la ëpp doole la ko tegul. buur dina xam lu koy def wala mu gis ko nii muy ñëw mais du ko neex te dafay xam continuer grand tafa waa tafa tafa gis nga yaa ngi changé yaa ngi changé stratégie yaa ngi changé idée xam nga temps yële booy live doo waxee ni nan moo ko ëpp dana ko tour dana ko voilà ce qui veut dire que mooy li ma lay wax c'est logique nii rek nga mën a demee parce que c'est la bataille psychologique quoi yaa ngi dégg problème bi mooy Euh, yow li nga xamul euh, kii yow yow Tapha Kandji yow sa bopp expert nga man man ku ci nekk damay gis say analyse voilà te da nga euh, bon macha allah quoi xam nga xam nga léegi naan da nga yaroo si keppaaru làmb quoi mais c'est vrai je confirme voilà mais yow xam nga bu baax Modou Lo lenn laa question est-ce que bu fekkoon ne bi Boy Niang pare ak Lac de pare ak tafaatin ñu jox ko Modou Lo rek vous allez réagir comme ça non parce que boobaa si deux défaites la joge ak ni mu bëree mais li mu daan ball moo ko relancé waat te loolu nag day nax nit ñëpp foofu la nit ñi di naxee man sama dëgg laa lay wax quoi a Niang il est trop fort dafa am lecture de combat bu demee bay jàkkaarloo Modou Lo bay xëccoo titre bi c'est que il a des qualités c'est il est trop fort mais problème bi mooy c'est un lutteur limité te Modou Lo un lutteur illimité

mais bu ma ko taxawalee nii lii du daanu donc loolu la ñuy wax léeg-léeg ba Bakary danaan euh, moom ak Khady Gueye naan le centre de gravité plus bas gisoo boo gisee Messi Messi mu am mobilité day sëpp loxo bi rek dem buy waaw da koy gaañ mais day sëpp loxo bi rek dem parce que il a le centre de gravité plus bas donc te Modou Lo loolu daf ko am dafa équilibré si kaw équilibré équilibré ci suuf ba pare centre de gravité man nga ko am ba pare mais doo xam noo koy contrôler Modou Lo nag centre de gravité daf koy contrôler te te te bëre kaay moo expliqué la kanji bëre non tons léegi-léegi li ngay ni théorie wa maanaam gars yi li ñuy théorie maanaam boo déggee théorie waaw mooy gars yi maanaam des fois li ñuy wax nii comme tons quoi li muy wax centre de gravité centre de gravité xam nga calculer Fadam léeg-léegi làmb dafa am foo xamante ni bu fa tollee maanaam yooyu day réer ci ay bopp Hmm? maanaam mooy làmb dañ fee gis champion boo xamante ni Fadam mën naa bañ a tudd tur yàlla na ko suñu boroom yërëm dafa boole ñeenti champion dóor leen ñu daanu ñeent da leen boole dóor leen ñu daanu juróomeel ba moom ñu dóor ko mu daanu te ka ko dóor mu daanu moom miñ dóor mu daanu moo dàq xeex ki ko dóor mu daanu te moom dafa tegale ñeenti ñi gënoon a wex dóor leen ñu daan c'est que làmb làmb des fois maanaam gaa yi dafa am fu koy xoolee mais làmb nekkul foofu làmb du football nga xamante ni dañ naan prix bi nga mën a ma deux zéro bi ñu naan temps bi des na quatre vingt cinq minutes à tout moment mën ngaa ñëwaat làmb léeg-léegi da nga naan bëreet nga ne xaas ma a la tay nga toog mu jeex wala léeg-léegi nga def comme ni Tafa Gueye def Liss Ndiago dugg génn nga def kaat at faram loolu lépp ñu ko séntu làmb lu na mën na ci am làmb làmb lu ne mën na ci am mais dama laa bëgg nga wax ma xoolal danga may diglu benn a affaire xam nga avant ñuy bëree ak euh, la lion de Guédiawaye bi ñu fi waxee dañ ne non ñii dañuy kii rek naa nga fadam xooluñu Modou Lo ci xeex xooluñu Modou Lo ci bëree fadam xooluñu Modou Lo ci doole fadam fu jàmm yendut le premier bu mu fa fanaan

Sénégal quatre appuis au sol rek nga daanu ce qui veut dire que tout représente dans les appuis mooy appui donc bëre Sénégal li koy jeexal yëpp mooy les appuis voilà mooy nga perdre équilibre ñu daan la bu ñu lay plaqué dañuy xool ne da nga perdre équilibre ñu daw ak yow jël bopp bi fes ko ci plexus bi léegi daw ak yow loolu c'est obligé day mel ni guy gu daan da ngay perdre sa équilibre mu ngi mel ni ñu jël sa tànk waa ji di gauche yow ngay droite mu jël sa tànk droite croisé ko ba mu baax def un pas en arrière déj la côté bu mu jëlee tànk bi mais loolu c'est obligé da ngay ngay daanu mais doo jël tànk ba pare xanaa xamoo ne Eumeu Sène li mu jëlee tànk Modou Lo bi ba pare euh, boo gisee sax dafa jël tànk Modou ba pare nag téye sa ngemb ga benn loxo mënut a daan tànk boo jëlee tànk ak benn loxo mënoo ci dara parce que cuisse dafa ëpp doole ñaari loxo waxantuma laa benn loxo mbër boo jëlee tànk bi nii ba ko fi nga ko jëlee pied bi nga jël da ngay def un pas en arrière pour tànk ba la écarter tànk en arrière ba mooy appui bi